Bienvenue sur Salam Vision. salaam salaam sama gaay Salam Vision laa leen di tegal nii jàmm ju ànd ak vision fu sori waaw mooy Salam Vision yéen xamante ne yéen ngi koy seetaan dama lay diggal nga teel a dem gaaw abonné ci Salam Vision dama ne mbaa nga leen ñun ak yéen dañuy ànd dem Touba sol suñuy dàll dugg leen ci bépp ruq bu nekk Touba dama ne yéen ñi bëgg xam ruq yi nekk Touba Salam Vision mu ngi leen di invité tey sama gaay yi dama ne foofu dina xumb dina neex ñun ak yéen ci biir Touba rek abonel gaaw waral la ci biir Touba waral la jaar jaaru Sëñ Touba yépp ak li waral sababu màggal gi lépp soo ko bëggee xam yow mi xamante ne danga toog biir Touba mënoo dem sa tànk dafa woyof yebal ñu ñu ànd ak yow ba fa nga bëgg dama ne ak Salam Vision tout est facile tout est possible